baa ngoog liggéey baa ngoog ñaan doomu leen ci dolli loolu lu ñuy yëkkati bu mu laal suuf ilaahu kalimatillahi al ulia loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis bañ ci mën a jëm jëmul fer bis bañ ci mën a jëm kon nag jërë ngeen jëf mbooloo mi nga xam ne ay opérateur économique lañ ay homme d'affaires ay ingénieur te bokk ci yoonu murid te Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké tuddee leen talihatul muridiya mu nekk kuréel goo xam ne dañoo fas yéene ànd ak sëriñ bi liggéeyu université bi nga xam ne ñu ngi ko xayma ci fanweeri milliards ak juróom-ñaar ci sunuy koppar ñoom nag ginnaaw bi ñu fësalee seenub yéene ngir bëgg sasoo li nga xam ne moo jëm ci daara alxuraan yi nekk ci université bi ñu xayma ko ci juróom benn milliard ak lu teg ci sunuy koppar ñoom nag liggéey boobu ñu fas yéene koo liggéey ba mu àgg jébbal caabi sëriñ bi mu nekk liggéey boo xam ne moom lañ sasoo du xaalis bu ñuy génnee di ko jébbal sëriñ bi waaye bâtiment yooyu lañuy liggéey ba mu àgg muy daaral alxuraan ji daldi jébbal sëriñ bi caabi yi kuréel gi nag amal nañ ay ndaje yu yaatu yoo xam ne tënk nañ lu jëm seenub liggéey jëme ci université bi ci seen ñaareelu ndaje moomu sax engagement yi nga xam ne jotoon nañ ko fa jël na ci ñaari milliards ci franc fa ñoom kuréel gi nag di taalixatul muridiya ñëwoon ci université bu Touba doon ko nemmeeku àndoon fa ak ay kilifa di sëriñ Ahmadou Badawi sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadr sëriñ Maam Thierno moom sëriñ Moustapha Bassirou ak yeneeni kilifa bokk na ci ki nga xam ne moom di Abdoul Ahad bi jiitee Touba matériaux ginnaaw nemmeeku ki nga xam ne amal nañ ko ci université bi demoon nañ ci kër soxna Baali Muntaxa ci bërëb bi am na ay kàddu yoo xam ne bàyyeekoo na ci ki nga xam ne moo jiite mbooloo mi di seenub coordonnateur muy Mbay saar mbooloo mi da di mbooloom sëriñ Touba euh, ndax njaboot gi yëpp njabootum sëriñ Touba la sëñ Muntaxa Mbàkke mu baax mi xalif général kullu murit bi ñu dikkee waxoon danoo bëgg a jël daara alxuraan ji mu rafetlu ko ni man de boobu ngeen jël moo ma ci gënal waaye nag yéen ñëpp lu di opérateur économique euh, ak homme homme d'affaires intellectuel ingénieur architecte ñëpp ci lañu bokk képp koo xam ne Serigne Touba ndamam yitteel na la ci kaw suuf te ndamal Serigne Touba mooy ndamal taalibe yi bokk nga ci mbir mi na ni nga ciy bokkee lenn dong la mooy da ngay engagé wu nu bëgg a xamal Sénégal ni ko ubbeel nanu bunt képp koo xam ne bëgg ngaa liggéeyal Serigne Touba ci projet bii nu nekk projet bi nattable wu ñu ni 37 milliards la luur na waaye na ñun 6 milliards et bi muy daara yi alxuraan ji loolu rek lañ ci yor lenn li da koo jox suñu yeneeni mbokk yoo xam ni ñoo bokk jumtukaay noo bokk fu nu jëm noo bokk lu nu bëgg ndax yaatulu sëriñ bi moo mel noonu bi yàlla defee nu dem dakaar nag nu booba dëkk bi xam na woote wuñu ko téléphone dong lañ ci def ak ñi ko fekke woon kero bi nu seen bi di woo bu ñu dajee ca waxtaanukaay ba ku ne joxe xalaatam ñoo foofa la opérateur économique yi ni ma yow danoo bëggoon nga jiiteel nu ko nekk coordonnateur man neen ah dana jafe ndax opérateur économique ku mu jiital ci mbir mu mel nii euh, waroo nelaw ndax ñoom ay dirigeants lañu yuy si ay société kenn ku ne am na ñoo xam ne ñi ci am na ñoo xam ñu ngi jiite ay 500 personnes ci seen i entreprise kooku ku ñu ne yaanu doy demal nga jiiteel nu liggéey bi euh, sas nañ la sas wu rëy rëy euh, liggéey bi nag du daayira ñu xam ni du ab daayira daayira sëriñ bi mooy wax taxaw leen seen daayira ngeen di cotiser di yóbbu daayira bi lii du daayira lii fondement la boo xam ni lanu ci jublu mooy mbirum yëfi sëriñ Touba euh, mësu fee am nag lu mësuta am lu ne dana xaw a jaaxal ñu bare waaye lii mësu fee am sëriñ Mountakha moo ko gis moo nu ko jox moo ko sos moo tax nu ñeme waaye tëjaluñu ko benn nit boo xam ne Serigne Touba nga te am Pastef te bëgg ndamal yoon wi ubbil nañ ko bunti ñëpp xàmmeewuñu ki teg 1000 francs ak ki teg milliard xàmmeewuñu ko léeg ma dégg ci mbedd mi sax ñu naan kule kuréelu milliardaires yi loolu wax bu xaw a ñagas la ndax am nit ñoo xam ci Sénégal amuñu milliard li leen defal milliard ndax nit bu ko yàlla defalee mu jub tey liggéey doy looloo moom gore lool kooku milliard li moom ëpp milliard ñun woote wuñu woowuñu ay milliardaire danoo woo njabootu Serigne Touba borom Pastef yi ñi nga xam ne ndamal murid yitteel na leen nu ñëw liggéeyal Serigne Touba a ah, bi ñu ko sosee nag ko doxin rafet na lool ndax li ma jàpp mooy sunu première réunion. la fa engagé wu euh, en deuxième réunion ma yàlla baal la fa engagé wu jege na deux milliards euh, sunu réunion bu mujj bi nga xam ne quatre personnes la wala cinq ñu doon def évaluation li li bindu romb na foofu yëpp sore noonu te diggante samedi bi ak dimanche ak tey fii ma toog rek am na ku bindu sec naan ban tur laa koy def ku bindu sec ba pare xamul ku mu koy jox léegi léegi rek mu ngi ci mbooloo mi kon nag mbooloo mii Serigne Touba rek ko mën a woote tuuti nanu ci ku defee ni yaa mbooloo mii ndax nga sa bopp mbooloom Serigne Touba la te ba mu koy faggu doonuñu ci dara liggéeyee Serigne Touba nag dafa am solo ndax euh, bu nu fàttali ko tutu mag ñi kenn ku ne da daan bàkkoo naan Serigne Touba liggéeyloo na ma waaye fekk ko duñ ko naan dégg rek waaye ñun tey Serigne Touba nu liggéeyloo muy Cheikh Mountakha te mu mate ku sëkk amul benn nit boo xam ni da nga tudd sëñ Muntaxa ni moom laay liggéeyal mu cay teg man am na ñoo xam ne dama leen bind mën naa am bokkuñu ci yoon wi wala ndax bokk nañ ci sax waaye xamuñu xëy na xamuñu nuñ ciy bokki ndax Serigne Touba dafa ni képp ku nam ma dem ci boroomam te jub muritu laay la wax am na ñoo ne nag mu dafa ñoom ku demul jébbuli ji ah, di ko Touba doom murit Serigne Touba ñëpp la woo am na ñoo xam ne ba ma leen wooyee dañ ne bala ngaa yeggale bind ma temps bala ngaa yeggale bind ma te fi mu toll dama la ni am na ku ku bind seg léegi di ma ko jox ma ne ko woon waroo ma ko jox. dama ci yokk mbooloo mii ngay gis ku lu sëñ Tuubaa mënoo leen dajale nit kuy liggéey ba feeñ ñii duñu nit ñu ñu fal de ja mbooloo mii politique falu leen leneen falu leen xam nga lu leen fal liggéey ak njub ay nit ñu ne fii di liggéeyal Serigne Touba kenn ku ne euh, rol ba euh, domaine ba nga ne da nga ci liggéey ba Sénégal séen la ba xàmmee la te li la koy firndeel mooy koo ci tudu moo ca Sénégal ba xam na ko lu mu xam ci moom ci njub kon sunu àndandoo bi ubbi nañ ko buntu Sénégal yëpp rawatina ci nag ndaw ñi ndaw ñee nu gënal sax ndaw yi Serigne Touba loolu lu ñu teel la lool dama bëggoon ndaw yi ñëw soobu ci. xam ne ñoom ñoo koy mujje ñoom lañuy ñuy yoon wi bu roodee ba dox dañ naan ndaw ñi dem leen ñun ñu topp seen gannaaw ñun loolu lañ bëgg waaye nag Serigne tubaa rek nag ku fi nekkal Serigne Touba daal yaa nu yilif suñu fa jógee nag ku ne dem ci sa Serigne mu yilif la waaye mbooloo mii nga gis Serigne tubaa rek rek rek. tey ñu ngi fii ci kër Soxna baali mun taxaa gannaaw bi sëñ Mountakha. Euh, yóbbu ñu ci barab bi nga xam ne nii mi ngi ñu fa euh, euh, boole ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal seen Touba ah ñëpp nag dañu xam ne dafa am ñaar yu am solo yonent bi salallaahu alayhi wa sallam dafa wax ne almadaris xablal masajid mooy nañ tabaxu jàngukaay yi ba pare di tabax jàkka yi ñëpp gis nañ ne sëñ Muntaxa moom ay jàngukaay la woote te jàngukaay mooy lii dindi réer waaw ndax euh, réer lu mu àndal euh, ak nu mu mën a mel du baax euh, kon nag li nga xam ne nii moo war opérateur économique yi mooy taxawaay bi ñu taxaw ñu fekk si ko fekk si bi mooy dama koy delloo ci li alxuraan wax rek alxuraan ba mi wax dane xus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim biha daf na yonent bi jëlal waxul lajal dañuy jëlal ci seen alal saraxa sarax bo xamné ni day euh protéger alal yi daf koy assurer daf koy sellal comme kep ko xamné da nga yor sa alal euh, di ci liggéey bëgg mu sell nga jël lo xamné ni dang koy dugal ci yoonu yalla te yoonu yalla ab jàngukaay gënu ko upp doole kon nak euh, ñun ji euh watagon nañ lu mat ay 75 personnes dajaloo ko nañ lu mat 2 milliards incha allah sas bi 6 milliards la euh, bari na ñoo xam ne nii ñi ngi ci euh, ñu ngi bëgg ñi ngi ci bëgg a bokk kon nag képp ku ci bëgg a bokk a bokk rek nga woo suñ président Mbaye Sarr euh, bu Sénécartour ak trésorier bi mooy Serigne Ablaye Dia waaw mu nekk loo xam ne nii dafa nekk mbiru taalibe yëpp. maanaam lu mat fukki bâtiment lañu war a tabax. ñaari ay jàngukaay la ñeent ay dëkkukaay am ñaar yoo xam ne pour lekk la pour xewtu muy restaurant ak ñaari yoo xam ne pour euh, feexlu la donc ñaari bâtiment nga xam ne pour dëkkukaay la moom pour jàngukaay la bu ci nekk juróom-benn téeméeri taalibe la war a am kon maanaam juróom-benn góor ak juróom-benn jigéen parce que bépp kon junni ak ñaar téeméer taalibe la war doon bu pare itam wutal leen itam ay dëkkukaay jigéen ñi benn bâtiment la boo xam ne rez-de-chaussée étage ak ñetti étage boo xam ne moom itam juróom-benni taalibe dinañ ci mën a dëkk yu jigéen daal beneen bâtiment boo xam moom itam noonu la comme boobu juróom-benni téeméer taalibe yu jigéen ñoo cay dëkk. ñooñu itam daan itam ay dëkkukaay ñaari bâtiment pour ñi leen di jàngal ñii jàngalkat yu jigéen ñi ngi seen bâtiment jàngkat yu góor ñi ngi seen seen bâtiment. kon wax naa ñaari jàngukaay yi nga xam ñaari bâtiment xam pour jàngukaay la ndax ñeent yi nga xam ne pour dëkkukaay la am na ñaar yoo xam ne pour restaurant la. pour ñu dafa lekke buñ paree itam am na ñaar yoo xam ne moom ma ne bu jàngul euh, nelawul war neen ay foo xam ne fa la ñuy féexloo ah di nga xam ne jànguñ ko nelawul waaw loolu mooy programme yoo xam mooy fukki bâtiment la yoo xam ne moom lañ bëgg a tàmbali bâtiment nag yu nekk vraiment ay bâtiment yu yaatu la yu rëy parce que bu ci nekk dina am à peu près ay deux mille quatre mille deux mille trois mille yoo xam ne la la yu ñu tabax buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko xayma mais yaakaar naa ne itam euh, lépp li nga xam ne mooy parent d'études yeeg pare na mais fi ne li ci tax mooy ñun ñu gisee seet ñi nga xam ne moom lañ ko war a doxale mais programme daal boo ko seetee ca dëgg mooy fukki bâtiment yi rek mooy xaaj bi nga xam ne ni bu pare junni taalibe ak ñaar téeméer danañ am fu ñuy jànge danañ am fu ñuy dëkke danañ am fu ñuy lekke danañ am fu ñuy noppaloo pour rek ci li nga mooy tënkal bi daal mooy daal ñuy dafa daal junni ak ñaar téeméer taalibe la asalaamaaleykum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 nee ni ko sëriñ bi waxee léegi rek ci mbégte mi maam ak yaakaar ji maam ak rafet njort gi maam ci liggéey bi ngir yéen nee loolu day yaatu na lool nee dafa def ni bu ko sëriñ bi waxee nag nee waxaale na ñëpp nee ñëpp dugg nañ ci biir waaye liggéey bi nag nee mënees na cee dalalum xel bu baax nee liggéey sëriñ Tuubaa moom dara melu ni mom ne te day yegg rek ko am tawfiq tek sa loxo da nga wara sant yàlla ndax jumaay touba ji mo geñona métti fop ne bobu fiib alla la te amu tub tali amu tub ray te sori na lol ak ndakaaru sori njaareem mitam waaye ba nga xamee sëñ bi bëgg na ko njaboot gi jóg taxaw lépp luy taxaw liggéey ba sotti def nañ ko ba liggéey bi am tey kon buñ demee ba jamono ji Cheikh Mamadou Mountakha gis ci naali sëriñ Touba naal woo xam ni mënees naa jàpp ne moom dong moo fi desoon ciw naal mu semb ko ngeen am taw feex ju toll ne jël li ngeen ci jël lépp loolu sant yàlla rek moo war dëgg la sëñ bi sant na ci yàlla mbooloo mi sant nañ ko yàlla waaye yéen ñi nga xam ne nag yéen la ko teg seen loxo yéen a war a gën a sant yàlla xanaa nun ñun ñi nga xam ni yàlla danoon to bu fekkoonte ni démb la toolu sëñ Muntaxa noo cay xëy di ca gont lu dul ku ko may xëy wala mu ngont ne kon nun ñoo war a gën a sant yàlla liggéey bi dañoo jàpp ni sunub liggéey képp koo xam ni yaa ngi ci yëngu yëngu ba rëy na wala tuuti na nun loolu amuñ ci yitte la tey sunu wàll mooy ñu jàpp ca bu baax jàpp leen ci sant leen ci <coughs> gërëm leen ci te ñaanal leen itam bu ñu jëlsee nag ci barab bi ci wet soxna Baali ne Cheikh Anta wax na ko sunu waajur la féetu nu Sëñ Tuuba waaye dañu xaritam te xarit kat noppi naa woyof ba mu yóbboo mborom jaajana kon sama mbokk sama kilifa waaye bu ma tegoon foofu lépp it sama xarita kon nag maa ngi sàkk ci moom. lépp loo xam ne am na ko sëñ lépp loo xam ne am na ko sëñ Tuubaa mu dolleel ko sëñ Muntaxa ak ñaan seen liggéey bii mu aaru te fegu tàgg niw yoon ba ni ngeen ko bëggee mu yegg mu yegg ni moom it ngeen ñaanal ko wala nun ñëpp nu da ñaanal ko lam bëgg sëñ Muntaxa te yaakaar ko ci moom yàlla def ko te sëriñ Souhaïbou bu dey ne lii rek la ci bëggoon taxawaay bu mat sëkk taxawaay boobee nag yàlla def na ko ne lim ci dajee kon ci ngërëmal sëñ Touba ñëpp yéen nañ ko yàlla na yokk ne mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mi ngi balu ñëpp àq waaye di ñaan nag ci barkeb sëriñ Touba barkeb lépp lu baax barkeb sëñ Muntaxa mi leen koy liggéeyal liggéey bi yàlla na ngeen jot ci caabi ji ba ci loxoom ba mu sant leen leneen ngeen defi loolu nee te sëriñ Tuubaa ngeen téye ci mu defal leen ci lam leen ci war defal tey ak ëllëg barke sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa lu mas a soxla taalibe yee ko def tey am na ñu bari ñu bokk ci état daañu bokk ci yeen waaye état dana xam ni sëriñ Tuubaa mii lay ànd ak moom nii la mel ba ñëpp dañ leen wuy moo tax yaatal leen ko ñëppay wuy si alaaji njuga kebe dafa dem di siyaar Sidna Sidna Aliou ca kaw fa sëñ daam déegal dend ak moom ni ko xubba bi or la mun ni ko cam ndaam def na tuuti di tiim sëñ Bamba lépp or lay doon daal di jóg ñëw rek uti sëñ Abdou wax ko ko sëñ Abdou génne lu génn gaal génne ca benn bataaxel ni ko fii la ko sëriñ Tuubaa bind demal nga def ko loola nu du fi jóg booba ñaari milliardaire lañ fiy wax njuga kebe jiili mbay àll seen daw di leen dab te yéen ñëpp sëñ Tuubaa jox la leen loola tey la fépp te bu ngeen tàmbalee sëñ Bamba yeggale te ku ne la gën nag ca gaal ak ca banque sëñ bee la ko jox yore milliard ci banque bi nag denc ko ca gaal foo tiitee ni sëriñ tubaa di ca coppati tuuti jox sëñ bi wóorut da ngay naddi bu ngeen naddee sëñ Bamba naddi leen nu déglu mbay. ne dafay complété rek. waaye li ci jotoon a wax li ci waroon a wax yëpp. waaye li ci waroon a Eh, ministre Coumba Ndoffène. nee ministre Arona Coumba Ndoffène. Eh, mm, Presidente Mbaye Sarr. président Mbaye Sarr. Serigne Boub. Serigne Boub. daanaka seen kaddu mooy sama kaddu. nee daanaka seen kaddu mooy sama kaddu. Eh, sama kaddu mooy seen kaddu. sama kaddu mooy seen kaddu. yoruñu daayira. yoruñu daayira. engagement la. engagement la. engagement nag. nee engagement nag. nit ki day libre. nit ki day libre. daayira. daayira dañ lay sas. dañ lay sas. fii nag engagement. fii nag engagement la. ay taalibe yu engagé la. loolu dong nag. ne loolu dong nag. la ci teg ci loolu. la ci teg ci loolu. li ci des. li ci des. xam naa ni. xam na ni. wax ji. wax ji des na ca kanam. des na ca kanam. yéene ji. yéene ji mënuñu ko wax. mënuñu ko wax. li ñu yéene. li ñu yéene mënuñu koo def mënuñu koo def. waaye comme ñoo ngi jéem. comme ñoo ngi jéem. li ñu man li ñu man nañu xaar ba ci kanam. nañu xaar ba ci kanam. yaakaar naa ni. yaakaar naa ni bu ñu yàlla dimbalee. bu ñu yàlla dimbalee. ba nu egg fenn fi. ba nu yegg fenn fi. boobaa bu nu mënul wax it. boobaa bu ñu mënul wax it. dana wut ku ñu waxal dana daañu wut ku ñu waxal. waaye nee na léegi nag. man côté bi may waxee. nee côté bi muy waxee. ci côté Soxna Bali. nee ci côté Soxna Bali. waaye moom nag dafa am lu ma waxoon. nee waaye nag dafa am lu ko Soxna Bali waxoon. nee na ma seq ñu joxe. nee seq ñu joxe seq ñu ngërëm seq ñu ngërëm ñaan lañu seq ñaan lañu seq te xam loolu bu la ko waxee def ne loolu nag bu la ko sa sëriñ waxee lay da lay tànk lépp lu ma am ci Serigne lépp lu ma am ci Serigne Touba muy sëñ Muntaxa muy sëñ Muntaxa ma sante ko soxna Baali ma sante ko soxna Baali waaye nag waaye nag bi ma ñëwee ci moom it bi ma ñëwee ci moom it mun ma ñoo bokk baay bi mun ma ñoo bokk baay bi bokk sëriñ bi bokk sëriñ bi kon moom itam ma du ma jóg ne kon moo du jog ci seen sëñ koso tey jiit ne tey nag moo ma wàllu moo ko wàllu fa ma toogoon fa mu toogoon. yéen gi nuyuwuma sëñ ba léegi. nee nuyuwul sëñ ba léegi. kenn gisuma fa. ke kenn gisu ko fa. ndax jaaxle woon ndax jaaxle woon. mu ne ma dalal sam xel mu ne ko dalal sam xel léegi. nañ dem nañ dem. kenn bi ma ñëwee nag. bi ma ñëwee nag gis lii. gis lii non ci laa ne nag. nee sëñ Tuubaa daal du morom sëñ daal du morom. soxna Baali daal du kenn. soxna Baali du kenn. tey jii nag tey nag gën nga maa jaaxal gën nga koo jaaxal fukki nit ak juróom laa la wax fukki nit ak juróom laa la wax indi ñaar téeméer indi ñaar téeméer ñu lekk ba mu des ñu lekk ba mu des lii sëñ Tuubaa rek lii sëñ Tuubaa rek ko man li alxuraan di wax rek ne li alxuraan di wax rek nit ku nekk la mu seede rek lay xam la mu xam lay seede la mu xam lay seede te soxna si moom te soxna sii moom la Seex Abdou Lahad sa baay bu baax ba daa wax rek nit seen muy wéy nit seen muy co nit ki bu leen yàlla boole. da ngay gëstu mbiram ba xam ca da ngay gëstu ba xam ca dara. ba boo déggee ñu di ca wax. ba boo déggee ñu di ca wax. la nga jàngoon ba xam ko. la nga jàngoon ba xam ko. nga jàpp loola nga jàpp loola. waaye li sëñ Tuubaa doon wax. waaye li sëñ Tuubaa doon wax. daawud da daan wax daawud wax ku la jur ku la yar daawul wax ku la jur ku la yar lay wax. waaye moom boo xoolee waajuram. waaye boo xoolee waajuram. ak ki ko yar ak ki ko nag ngay door a xam ne. ngay doog xam ne nag. kii nii la mel soxna Bali nii la war a mel. man de xam naa lu baree bari. nee moom de xam na lu baree bari. xam na ñu baree bari. xam nañu baree bari. waaye li ma wóor de. waaye li ko wóor de moo di. ci lii mu bokk moom. ci lii bokk moom. man Abdoulaye gisaguma. moom Abdoulaye gisagul. ku ñemee ni moom teraanga. ku ñemee ni moom teraanga. ak ku baaxee ni moom. ak ku baaxee ni moom. ak ku jëflanteeg moom. ngay jëflanteeg moom. wala mu jëflanteeg yow. wala mu jëflanteeg yow. xam nga ne nit ku yiw la. xam nga ne nit ku yiw nit ku baax la. nit ku baax la. ku bëgg lu baax la. كوي دفر لا كو ام ترانغ لا تي اتان كو جوخي تي كوم ترال نغا تيت تي كوم ترال نغا تيت لو دال خامنا نكو تي ني لولو ني ما خام تي لو راو لي ما خام تي لو راو لي ني واخ تي واخومako بو بوبا دا فا ام لنين لو نيت بو بوبا لو رك لا دون لو رك لا دون واخ دي لين سنت دي لين دي لين دي ساكو تي ñom ñaan دي ساكو تي ñaan بو باخ دي ساكو تي سيغ كوسومي دي ساكو سيغ كوسومي مو ñaanal مبولو مي مو ñaanal مبولو مي nga xamni sëñ Tuubaa lañu. bu ne ci waar wi bu ne ci waar wi. nag gopp nag. bu nekkee ci waar. bu nekkee ci waar. lenn dongay yi ndamam. lenn dongay ndamam. ndax da yàgg yàgg dana damm. yàgg yàgg dana damm. wala mu maax wala mu maax. waaye na tool bi muy bay set tool bi bay set rek. kon nag kon na nga ñu ñaanal. ñu bay ci tool bi waaru ñu bay ci tool bi waaru yaa. ba am ci ngërëmal sëñ Tuubaa ba am ci ngërëmal ndax mooy suñu ja mooy suñu njëriñal tey. mooy suñu njëriñal tey ëllëg. liggéey baa ngoog liggéey baa ngoog ñaan dong leen ci dolli. loolu bu ñu yëkkati bu mu laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi loolu nag bis ba ci mën a jëm jëmul fer bis ba ci mën a jëm kon nag jërë ngeen